ñu ngi leen di tatagal di leen dalal ci jumaa ji ñu ngi tuddee jaamiu abdallah ibn abdul aziz arrajixi fii ci jaxaay tey di dimanche 9 novembre 2014 ñu am jataay bu mag a mag bu nga xam ne war nañ koo séq ak cheikhuna ak docteur Mouhammad Ahmad Lo muy waxtaan woo xamante ne mi ngi aju ci Euh, thème bu ama am solo te mooy alxuluwu fi diin ëppal ci diine li koy feeñal ak li koy sabab ak lan moo koy saafara duma guddal ci thème bi ndax cheikh bi moom moo ko war a traité du ma guddal itam ci xam xamle ki nga xamante ne moo war a def waxtaan wi ndax yéen ñëpp xam ngeen ko kon damay bàyyi rek cheikh naa comme heure bi ñu waxoon jot na mu daal di tàmbali ak yéen ci waxtaan wi ñi nga xam ne dañoo bëgg a enregistrer mën nañoo teg seeni portable ci kaw baafal yi au lieu ñu koy teg ci kaw taabal yi mën nañ koo teg ci kaw baafal yi di fàttaliwaat aussi ne téere yi nekk ci jàkka ji waqfu la ci jàkka ji kon ku nekk ci jàkka ji bëgg caa liir wala bëgg caa jàng man nga caa jàng waaye boo noppee nga bàyyiwaat ko ci biir jàkka ji kon cheikhana tafaddal mashkura bismillahi rahmani rahim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 Eh, mbokki jullit yi kon tey eh, dañoo daje fii ci néegu sunu borom tabaraka wa ngir jàngat tomb boo xam ne itteel na jullit yi fii ñu toll mu jëm ci lu jëm ci wàllu ëppal ci diine ëppal ak yées dañoo doon ñaari mbir yoo xam ne benn baaxu ci diine laajul nit ki yées waaye laajul it nit ki ëppal lu yées day daal di waaye lu ëpp itam day daal tuuru e, tomb bi nag ni ngeen ko déggee ci waxtaan wi dafay làmboo li ñu tudde alxulu ci boppam mooy lan ak feebar boob yi mu doon su fekkee ne dal na nit ki yan signe lañuy gis ngir ñu xam ne kii kat ëppale ngi koy duggal mi ngi koy dugg suñ xamee lool ba noppi danañ romb ci sabab yi cause yi nga xam ne mooy tax mooy yóbbe nit ki mu dem ba ak ëppal dugg ko suñ noppee ci loolu mujje lu jëm ci wàllu saafara yi kon tomb yooyu ci la waxtaan wi jëm in allah alxuluw suñ ko waxee rek ci kàllaam ak arab moo di almubalagatu fi lcheyi wa tashdidu fiihi bi tajawusi alxadd lépp loo xam ne nit ka def na ko ba weesu ca fa mu waroon a yem kooku dañuy wax teengal na ca loola maanaam teengal na ca la muy firi mooy ëppal na kon lépp lu jéggi rëdd wañ ko rëddaloon jéggi frontière am dafay wane ne kooka ëpp na léegi weesu na fam waroon a yem bu dee ci diine nag dañuy wax ne mooy al ifraat wa mujaawazatu al xadd bi taklifi nafsi ma lam yukallifha shar bu fekkee ne ci wàllu diine la moo di nit ki jéggi dayo ci anam goo xam ne dafay yan boppam loo xam ne diine yanu ko ko wala mu rëddal boppam rëdd woo xam ne diine rëddalu ko ko e, teengal googu nag wala ëppal googi ay xaaj la am na ci ëppal goo xam ne dafay aju ci al afaalu al mashrua fi l ay santaane yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala da ko santaane nit ñi war koo def nit ka ñëw ëppal ca loola mën naa fekk loo xam ne yàlla da ko daganaloon ci moom mu jekki-jekki ne loola moom duutu ko laal araamal na ko ci boppam wala mu yan boppam ci xeeti jaamu yàlla ak xeeti pas-pas ak xeeti jubluwaay loo xam ne àttanu ko xeet woowu am na am na beneen xuluw muy beneen teengal boo xam ne dafay aju ci atte atte moo xam ñi ngay atte ay benn benn nit lañ wala ay mbooloo la wala sax ay organisme atte leen jox leen place ci diine ci bunt bi ñuy tudde baabul asmaa wal ahkaam eh, xeet woowu nag ci xeet yi gën a ci wàllu xuluw ci la bokk muy li jëm ci wàllu atte ay nit jox leen place ba ñu war a toog xeet woowu boo ko xoolee ñaar la bi jëm ci wàllu atte bi ñu jëkk mooy nit ki mën naa ñëw taxaw ci kanam nit fonk ko fonkeel goo xam ne yëkkati ko ba teg ko foo xam ne di ko tagg xeeti <coughs> tagg yoo xam ne mën na dem ba yóbbu ko foo xam ne doomu aadama sax du fa àgg xam nga ne xeetu teengal wu mel noonu lu yàgg am la ndax boo xoolee fa bokkaali jëkk ame ci kaw suuf xeetu ëppal wu mel noonu moo ko indi muy ca xawmu nuux ni ko abdullah ibne abbas radiallahu taala anhuma nettalee lu jiitu nitu nuux alayhi salaam bokkaale musul woon am ci kaw suuf waaye nag bi nga xamee ne dem nañ ba am seeni nit ñu baax ñoo xam ne dañ faa nekkoon di digle lu baax di tere lu bon bañ faatu seytaani ñëw feeñu leen ne leen da ngeen di defar ay nataal ay statue yoo xam ne dangeen ngeen koy yett yoo xam ne dañuy nuroog nit ñu baax ñu fi nekkoon su ngeen ko yettee teg ko su ngeen leen jiitee dangeen leen di fàttaliku su ko defee seen xel dellu ci yàlla ñu ne ah, lii de xalaat bu rafet la daal leen di yettal ay nataal tàmbali saabu seen xol di bëgg a wow rek ñu ñëw xool fàttaliku ne ah kii de mooy wadd ñu ne kii de mooy suwaa kii de mooy yaquq kii de mooy yaxuus kii de mooy nasr kilifa yu baax ya nekkoon seen xel delluwaat ci ñoom ñu dem jaamu ji yàlla biñ koy def ba mbooloo moom yi nga xam ne ñoo doon dund ci jamono yooyu faatu seeni doom ak seeni sët ñëw ñu ne sun maam yi fi defoon lii kat dañ ko fay defoon ngir jaamu ko daal di tàmbali nag di ko jaamu kon booba jéggi dayoo nga daal nay am teengal nga daal nay am ca lool la sunu borom tabaraka wa taala yebale nuux alayhi salaam ngir mu ñëw woo leen delloowaat leen ci tawxid bi nga xam ne ca la doomu aadama nekkoon ba boobu kon xeetu teengal woow yi nga xam ne mooy yëkkati mbindeef ba yóbbu ko foo xam ne du palaasam ci wàllu kaweel ko e, ci teengal yi yées ci la bokk te it ci jëkk am ci la bokk beneen bi ci des mooy safaanu boobu taxaw ci kanam nit ki wala kanam mbooloo mi wala kanam sax état bi ŋàññi ko xeetu ŋàññiin woo xam ne mën na ko wàcce ci suuf ba àgg ci sax na yéefar la yéefarloo ko te firnde amu ca xam ne dafa jóge ci sharia kooku xeetu la woo xam ne sun borom tabaraka wa taala ñaar yépp tere na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ko borom bi tabaraka wa taala yaa ahlal kitaab laa taxloo fi diinikum yéen ahlul kitaab bu leen teengal mukk ci seen diine wala taqulu ala illa alxaq bu wax ci yàlla lu dul dëgg maanaam bu leen teengal ba teengal yóbbee leen di wax lu dul dëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iyaakum fi diin maa ngi leen ngeen teengal ci diine ji iyaakum bu ko arab waxee wattandiku loo bu xóota xóota leen fa innama ahlaka man kaana qablakum al guluw fi diin ñe leen jiitu kat la leen alagoon mooy ëppal ci wàllu diine kon mu ngoog kon xam nañ ne alxulu buñ ko waxee mooy ëppal ca lu mën a doon ci biir diine ji moo xam ci jaamu yàlla yi la aju moo xam ci àtte nit ñi la moo xam ci bëgg nit ki la moo xam ci bañ ko la lenn lu ci nekk am na teengal goo xam ne bu ci nit ko àggee rek na fa mu waroon a yem fekk lu baax la doon wut àgg ca la ñuy tere Eh, bu ñu demee ba ci jamono nag ñii aajoo thème yu mel nii ndax liñ doon gis mooy li gën a bari ci formation yi ñu doon weesoo liggéeyub lislaam bi ci suñ gox yeeg fépp liñ doon gën a aajoo mooy lu soññi nit ñi ngir ñu yokk ba mën a wéral seeni pas-pas yokk ba mën a góor góorlu ba jàpp ci seen diine yokk ba mën a càggante ñu mën koo wattandiku kon nag suñ demee ba mu yàgg ñuy aajowoo ne ah wattandiku leen nag mu ëpp dañuy yëg ne pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ak seen doxiin moo di dëgg la laa ñu di yées lu ëpp ci nit ñi rek yéesal la ñuy def waaye dangay dem ba mu yàgg ay kuréel sosu yoo xam ne ëppal da leen di dugg ndax mbirum diine dafa doon loo xam ne daa mel na thermomètre boo xam ne dafay dafay dafay yéeg rek am foo xam ne bu fa àggee nag daa war a taxaw su fekkee la ko waral lal ci xam-xam yaag yar baag teggin yaag mën hëj bu leer baag yooyu yépp nag amul day àgg fa mu war a yem di yéeg di dem rek di yéeg di dem day mel ne ndox mu bax bu yàggee rek cin li day daal di tàmbali di tuuru su ko defee nag yow mi yor gaz bi kat dafay jaadu ci yow mu yéen borom xam-xam yeeg wootekat yeeg ñi nga xam ne yéen a xam yëf yi fa mu toll dafa faayam day am fu muy toll nag gaz ba na mu doon tàkkee nag te foor da ngay tàmbali nag di wàññi tuuti su ko defee muy bax bax bu yem di bax bax bu yem ba am foo xam ne duutu ko weesu ci loolu la ñam wa di ñore te dara du yàqu eh, jamono lañ nekk joo xam ne dem nañ ba bunt bi ñuy tudde alxuluwu tey jaar na ci bunt yi nga xam ne dem nañ ba mu wóor ne noonu lislaam dañ koo soxla nit ñu mel noonu dañ ko bëgg ndax bunt la boo xam ne dees cee mën a jaare ngir faagaagal lépp loo xam ne luy yëngu tey nuru ci kaw suuf la nit ñu mel noonu su amee loola moom moom lañ bëgg su amul su fekkee ne mën nañ ko créer sax ñoom danañ ko jéem a danañ ko jéem a créer danañ ko jéem wut ba mu am loolu nag su fekkee ne lu mel noonu dem na ba am nga xam ne jeexit yu mel noonu mën na koo jur muy dem ba faagaagal daaw beeg la nit ña nekkoon lépp di ci yëngu mu doon lu baax ñi mën a xëy yàqate ko ci lu dul dara su boobaa nag jaadu na ñi nekk ci biir kër gi muy waa daaw bi ci boppam waa liggéeyub lislaam bi ñu xam seen bopp xam fu ñu war a yem ànd ak seen xel tënku ci seen sharia kenn du leen mën a nax ba yóbbu leen ci loo xam ne lu bokkut ak la leen taxoon a jub loolu la foofu bokk na ci sabab yu ñor yi tax ñu aajowoo dëgg dëgg jàngat tomb yu mel nii bi caagin ci benn jataay wala ñaari jataay waaye dañ ko war di jàngat di ko jàngataat ba mu doon fiq boo xam ne ndaw ñi dañ koy xam xam li nga xam ne moom la diine ji soxla ci ñoom ñu yem foofa te bañ koo weesu ah, tomb bi ci tegu moo di madahirul ulu gannaaw boo xamee ne xam nañ ëppal gi mooy daal liñ ci jublu dëgg-dëgg nan lay signalé woo ñu xam ne kii nit kii wala mbooloo mi ak teengal wala ëppal dugg na leen tomb bi ci jëkk moo di tafsiru nusuusi tafsiran mutachaddida bépp texte boo xam ne dafa ñëw ci sharia ñu firi ko firiin woo xam ne wu lay doon woo xam ne soo dégloo kaloola loola gaar maanaam ki tàmbali teengal di ko dugg boo ko dégloo muy wax ba ba muy jeexal ci wàllu diine na muy firee ay alquran ak xadiis yi yow la nga ciy jëlee moo di shariatul islam bi moom lu yomb amu ci lépp dafa diis wa mulazamatu al axdi ashad saa bu ñaari mbir ñëwee ñu laaj ndax bii lañ war a jël wala bii ki feebar boobu gaar day xool ba ci gën a tar mu def ko mën na koo duggee nag wet gu nekk donte sharia yombal na foofa sax donte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax nee nañ mosuñu ko tànnaloo ñaari mbir lu dul mu tànn ba ca gën a yomb li feeg bàkkaar nekku ca waaye kooku day fàtte loolu day jàpp ne daal ngir nga mën a baax daal faw mbir mi daa war a diis dafa war a metti dafa war a tar dajale bépp texte boo xam ne jàpp na ne lu metti moo ci nekk yooyu lay faral di jëfandikoo waaye su rombee ci buy yombal sax du ko geesu kon feebar bi noonu la koy dikke maanaam ci màndarga yi wane ne feebar baa ngi koy dugg ci la bokk booleeg nag di xatal lu mettee metti fu war a yaatu mu xatal ko ëppal lool itam ci wàllu araamal am na ñoo xam ne boo leen doon laaj tey masala boo xam ne dañuy nattable dagan na wala daganut su ci amul dalil bu wér day jàpp ne dafa xaraam ba ba muy gis ne dafa dagan ba ba muy gis dalil bi wane ne dafa dagan te loolu dafay juuyoo cosaanul sharia ni ko borom bi tabaraka wa taala ndax mboolem jëf yi ñuy jëfandikoo yépp la cay cosaan mooy day dagan dafa daggan ba kero text di ñëw ne la lii daa xaraam nga door koo bàyyi mooy yi ngay jëfandikoo la ngay lekk la ngay naan la ngay sol la ngay sëy la ngay def nangam yooyu yëpp cosaan la mooy daa daggan lu dul exception boo xam ne charia ma ñëw ne laa nangam kat bul ko jëfandikoo ki dem ba feebar bu wolow dugg ko nag lay cosaan ci moom lépp daa war a xaraam ba ba muy am dalil buy wane ne lii lii dagan na te loolu lu rëy rëy la maanaam yàlla daganal nga dem xaraamal kooku musiba la moo tax borom bi tabaraka wa taala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalu hada xaraam li taftaru ala allahi alkadib in alladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflixun borom bi tabaraka wa taala nee na bu leen waxal yàlla lu dul dëgg lu ngeen jot ne lii dagan na lii xaraam na lii dagan na lii na te tegu leen ko ci dalil di duural sunu borom tabaraka wa taala mu ne ah kuy waxal yàlla lu dul dëgg day ku fay feral day nee na kooka du texe loolu moo tax boo xoolee ci téere yi salafu saalix ci seen téere yi jëm ci wàllu fatwa wala ci wàllu atte yi sax ci wàllu fiq masala yu bare bare bare bari duñ jëfandikoo baatub ne lii su fekkee amul sa dalil bu dox buy wane lii dafa xaraam da nga dégg ñu ne day nakrahu haada lii lii day sib nan ko wala laa ara haada loolu day gisuma ko waxin yu mel noonu la ñuy wax nga xam ne ci seen bopp lañ koy yemale wane ne daal seen ijtihaatu bopp la mën naa juum mën naa ñett waaye araam na moom bala ñu koo wax rek dañuy gis texte bu wóor boo xam ne dafay tegtal ne nangam xaraam na walla boroom xam-xam yi dëppoo ci ne xaraam na ñu ne lii xaraam ñaareel ba ci mazahir yooyu muy siiñ yi al tashaddud fi ddin walxildatu fi ltaamul walxushunatu fi luslub walfadaadatu fi ldaawa melokaan lay doon boo xam ne soo ko doon tënk daal da ngay wane ne ci loolu fas gaar ku naqari deret lay doon maanaam duutu am jàmm bu dee ci wàllu diine jëfandikoo tar la koy jëfandikoo bu dee ci wàllu digganteem ak doomu aadama yi jëflanteem lépp wu ñagas lay doon bu dee ci moyen ba muy jëfandikoo pour woote jëme ci lislaam sax lu tar lay doon loo xam ne dàq nit ñi lay gën a nuru ci woo leen ngir ñu wuy si te xam nga ne wowu melokaan yàlla mayut kenn muy mel noonu nit ñi di ñëw ci moom di jëm ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo gën ñëpp sax borom bi dafa ne ko fa bima rahmatin min min allahi linta lahum ci yërmaande sun borom tabaraka wa taala ci nga nooye ci nga nooye laa biir oyof walaw kunta faddan galiza alqalbi lan faddu min xawlik su fekkoo ne da ngaa doon ku taral ku naqari deret ku metti nee kon ñoom ñëpp ba tey tasaaroo nañ bàyyi fi nga dem nit ñi fa ñuy fa dafa am lu leen fa bàyyi ci wàllu jikko ci wàllu jëflante loolu mooy tax nit ñi di dajaloo di jëriñu ci moom waaye njariñ li nga yor su fekkoon ne njariñu àdduna ak a sax la waaye amuloo melokaan ci wàllu jëflante woo xam ne mooy tax doomu aadama yi jëriñoo ci doomu aadama yi dañ la fi bàyyi dem su boobaa lor ngay doon ci ñoom moo tax melokaan woowu ci wàllu jikko ki xas taral loolu daf koy gaar te kooku musiba la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér mu ne yuhibbu rifqa fi l amri kulli sunu borom tabaraka wa taala na dafa doon koo xam ne ku lewet la waaye dafa bëgg ak lewet itam ci mboolem mbir yi maanaam bañ koo diisal woyofal ko nee lu ci nekk nga teg ko rek fa mu toll poids ba mu yor nga jox ko ko bañ koo yokk bañ koo wàññi ñetteel bi ci mazahir yooyu moo di suu zanni bil axarin fal aslu inda algaali fi diinihi huwa al ittiham wal fi l al idaana ñetteelu tomb bi moo ki nga xam ne alxulu xas na ba dugg dugg ko ak ñaaw njort moo koy dugg gu méttee kum dajal ku nekk rek jàpp na ne am na lu nekk ci yow loo xam ne lu baaxut la ci feebar boobu xas ba duggu dafa jàpp ne kum gis ku ne am na tuuma ju ne ci yow te lëm gëm mooy kuñ tuumaal ku nekk am na loo def moo tax ñu tuumaal la loolu nag day wuuteeg mboolem sharaa am sharia yi yàlla mas a wàcce wala xawaani yi doomu aadama yi teg sax moo di lay cosaan ci nit ki mooy dafa set wecc tuuma tegewul ci kawam hmm? lay cosaan ci nit ki moo di albaraa set wecc ba ba ñuy gis tuuma juñ ko tuumaal te même kiñ tuumaal sax lay cosaan mooy lañ koy tuumaal defu ko ba ba ñuy gis firnde buy wane ni lii moo ko def su boobaa ñu door a teg ci kaw kawam sanction wala lu mu yeyoo boobaa ñu door ko ko teg ki nga xam ne nag dafa dafa teengal ba jéggi dayoo ci diineem yurajjixu ixtimaal alcharri ala ixtimaal alxayr toujours fi ñuy jamtal ndax lu baax a fa nekk lu baaxul moo jàpp ne lu baaxul moo fa war a nekk képp koo xam ne juuyoo naa ñoom bu doon ci leneen sax ci wàllu jëflante moom daf koy wëlbatiku delloo ko ci diine jàpp ne sa diine moo yàqu moo tax nga juuyoog moom ci nàngam kon melokaan la woo xam ne mu mat a bàyyi xel la mu mat a wattandiku la bokk na ci siiñ yooyu ilzaamu nafsi aw il axarina maa lam yujibu allahu azza wa jal taabudan wa tarahuba yan boppam yan yoo xam ne sharia tegu ko ko wala mu yan ko nit ñi jàpp ne lii daf koo war ba noppi wëlbati ko ne nii mu ko ware noonu la ware nit ñi te fekk loolu amul firnde ju leer nañ ju dog ci sharia juy wane ne moom lii war na ko sax wala juy wane ne war na nit ñi ci des loolu dana du feeñ ci ay bunt yu bare bare bari rawatina ci jamono jii ñu nekk euh, danañ ci ñëw ci kanam xam nga ne buntu jihaad fi sabilillah bokk na ci bunt yi ñu gën a exploité ci bunt yooyu kan la war ak kañ la koy war ak lan mooy charte ya ak nu mu tëddee foofu ak lëndëm gu méttee métti am na fi goo xam ne tax na nit ki mën naa waral boppam loolu wane ne moom dafa war ci moom mu war a jóg defi ko te yëmut ci moom waaye dafa war nit ñëpp itam ñu jóg defi ko foofu doon na bunt boo xam ne bu aje taxaw la bu aje jàngat la ca kanam la waaye bokk na ca daal eh, yi wane ni nit ki ak teengal dugg na ko mu dem ba fekk loo xam ne lu ko warut la maanaam sharia néewu ko lii waajib la ci yow mu yan ko boppam waaye yemul ci yan ko boppam waaye mu yan ko doomu aadama yëpp ne dañ ko war a def bokk na ca siiñ yooyu ak taassub li ray ki nga xam ne feebaru teengal daf koo dugg xalaatam ak gis-gisam moom rek la gis maanaam kuy xool ci wewu tànkam la waaye xoolub keneen amul soxla ci beneen xalaat ci mbir yi nga xam ne ay mbiri ijtihaad la nga xam ne borom xam-xam yi ci wax na ci lii ci wax ci lii kii wax ci lii waaye moom na mu la koy joxe daf lay wan ne la day mel ni benn wax rek moo ci am mu nuur ca booba nag wan na ne lu dul lii loolu du dëgg lii rek mooy dëgg melokaan woowu su ko def nit ki defee ci masala defaat ko ci beneen defaat ci ñett defaat ci fukki masala su boobaa xamal ne ak ëppal nga koy dugg ci wàllu diine ak ëppal mi ngi koy dugg bokk na ca annadratu almisaaliya ila almujtama xool société bi daal jàpp ne société bi dafa ni mu war a mel ni mu war a mel mooy dafa war a dem ba dara lu bon duut fi am li feeg lu bon a ngi fi am rek day yëg ci xolam ne li ko waroon defu ko wootekat yi jàngalekat yi li leen waroon defuñu ko parce que suñ ko defoon société bi lu bon duutu fi am boobu gis-gis ci société gént la gént la ndax borom bi tabaraka wa taala amut société bu mu mës a may lool société bu laab bañ na lu bon amatu fa kooku mësul am ci taarix toujours ñu baax ña dañu fay nekk suñ demee ba not nag gën a bari gën a am doole ñu ne ah bii société moom bu sell la bu baax la waaye teewul ñu bon ñaa ngi ci biir di def lañ doon def ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ demee sax ba yonente bi dem Madina ba taxawal état ba l'islam di dox dagg nañ loxoom nit kuy sàcc dóor nañ ku njaaloo rajmu nañ muy rey koo xam ne ku njaaloo la nit tubbi na ñu rey ko ci jamono xulafaa rachidin kon amul jenn jamono joo xam ne nit ki dafa war a gént ne société bi ngir nu xam ne ñii woote ñi ngi woote liggéey baa ngi dox dañoo war a dem ba société bi laab ba lu bon foo xool duutoo ko ji amul benn société bu mas a mel noonu ci kaw suuf du ca la weesu du ci jamono ji ñuy dund te ki xam nu doom aadama di doxe ak sunani sunu borom tabaraka wa taala ni mu tëre mbir yi ci kaw suuf ki ko xam du séentu ne loolu day ñëw itam fekk ab ab woote rek rek moo mën a indi lu mel noonu borom bi tabaraka wa taala eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom wax na ne walladi eh, moom yonent bi alayhi salatu wasalam nee na walladi bi yadi moom yonent bi nee na waat naa ci yàlla ne law lam tudnibu la dahaba allahu bikum su ngeen fi nekkoon te defatu leen benn bakkaar nee na kon yàlla da leen di yóbbu wala jaa bi qawmin yudnibuun nee na kon mu indi ay nit ñoo xam ne ñoom dañuy bakkaarlu fa yastaghfiruuna fa yaghfiru lahum rawahu musliman fi saxiixi su fekkoon ne yéen ñii ñu fi indi tax defatu leen bàkkaar ne yàlla da leen di yóbbu indi ñeneen ñuy def bàkkaar ndax ñu man di jéggalu yàlla di leen jéggal ndax jéggalu al istigfaar ci jaamu yàlla yi ci la bokk su fekkoon ne dem ngeen ba doon ay malaayka yoo xam ne amatu leen bàkkaar su booba seen istigfaar du am maanaa te istigfaar da ngeen koo war di def moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa ne kullu bni aadama xataaun wa xayrul xataain attawaabuun doomu aadama yépp dañuy juum dañuy def bàkkaar ci gën ci ñoom mooy koo xam ne bu juumee wala mu def bàkkaar daal di jéggalu kon euh, xool ab société defe ne lépp daa war a sell lu bon waratu faa nekk su fa lu bon nekkee wala ndëngate nekk fa da ngay jàpp ne yow defuloo dara wala ña fa nekk di woote wala ñu jàngale defuñu dara ndax suñ ko defoon ba tey mbir mépp baax na loolu njuumte lu rëy loo xam ne dafay jural nit ki ci wàllu xalaat ak teengal goo xam ne mën na ko indil yeneen eh, bokk na ci mawaahir yooyu muy siiñ yi al juratu ala iqtixaami nusuus wa xamliha ala gayri maxaamiliha dëgëru fit goo xam ne gu rëy rëy la ci nangoo songu texte yi nga xam ne mooy al texte alquran ak sunna ñeme ko ñemeen woo xam ne sax dafay jéggi dayoo boroom xam-xam yi jàng ba peeg lu bari sax duñ ko ñemee noona ci wàllu jàng demagoo fenn soreegoo am fitu jël texte alxuraan jëfandikoo ko foo xam ne ci li weesu gisoo woon benn xam-xam bu ko jëfandikoo kooku fit la woo xam ne diine ju teeng weesu wu ko tayit kooku mën naa indil borom ay fitna ak i musiba ak i dégg-dégg yoo xam ne da koy wéetoo te loolu dafa bari ci jamono ji eh, bokk na ci al juratu ala nayli min ahli al ilm ki nga xam ne dem na ba teengal googu dugg ko day dem ba bor ñi ñuy tudd borom xam-xam yëpp dañuy dem ba tekkeetuñ dara fi moom kuñ tudd mu am lu mu wax ci moom kuñ tudd mu ne kooku nangam nangam kuñ tudd mu ne noonu nangam ca borom xam-xam yu magee nag ñoo tax ñuy wax am na ci ñoo xam ne dem nañ ba borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñooy mufti yu mag yi nekk ci àdduna tey koo ci tudd ñu ne la kooku amul solo ndax nangam ak nangam ak nangam ak nangam boo ko laajoon kan mooy muftiam bi mu gëm dëgg dëgg dëgg du jaar ci turu kenn ndax ñi nga xam ne ñoo koy doon doonul ñoo xam ne mën na leen a tudd su leen tuddee kenn du leen xam te it kenn xamul fuñ jàngee kenn xamul itam luñ jàng waaye wóolu leen gis na daal feebaru xuluw feebaru bi nga xam ne mi ngi ci moom gis na ne ñooñu ñoo ko dàq teengal mu jàpp ni ñii ñoom ñooy kilifa yu mag yi kon lu ñu wax rek noona la suñ déggee kenn ko wax baat boo xam ne dafa jëm ci dara loo xam ne ci tey siir mu yombal gi nga xam ne moo nekk ci lislaam la dañuy wax ne ah kooku de moom dafa ragal wala dafay dafay dafay déng-déng yi ci wàllu pas-pas wala dafay nooyal mbir yi daa bëgg a dellu gannaaw xeet yu mel tur yu mel noonu la ñuy jël di ko def ba borom xam-xam yee ñu gënoon yaakaar ñu wàcce leen ba teg leen taxtal aqdaam teg seen i tànk ci su ko defee nag génne yeneen i jëmm yoo xam ne bu ñu leen tuddee ñooñu dañ naan kooku mooy kan. Eh, fukkeel ba moo di ak tasarru fi tafsiqi wa tabdii wa takfir duna rujui ila usuli yàkkamti lool ci atte nit ki ne kii faasiq la maanaam ab kàccoor la wala nitu biddaa la wala ab yéefar la gaawtu ci loolu dëgg la jamono jun toll ju nekk faasiq am na am na ku nekk kàccoor am na ku nekk ci biddaa am na ku nekk itam yéefar waaye nag bul yàkkamti ci atte nit ki ne lii la te amuloo ci firnde bu jóge ci sharia te da cee am yoo xam ne ka koy àtte du jaage ni ki ci mbedd mi la waaye boroom xam-xam ya bu doon ci jamono yi nga xam ne lislaam mooy àtte nit sañu te dox ci mbedd mi ba mu yàgg mu ne kii nitug biddaa la wala mu ne kii faasik la wala mu ne kii euh, yéefar la kenn sañu ko wax kenn koo ko wax ku ne da koo xas maanaam da nga koo xas ci lislaam te lislaam ku ca xas dañ lay dóor juróom ñett fukki yar la nga sañ kay mooy gis nga ci moom loo xam ne xam nga ne lii fisq la walla lii bidaa la wala lii kéefër la nga am ñoo xam ne ànd nañu yow seede loolu nga dem ca qaadi kay atte nga xam ne bu attee moom mu tekki dara nga wax ko ko mu gëstu ba mu wóor ko ne li nga waxoon am na su boobaa mooy atte kooku ne kii nañ xam ne ci waa bidaa la bokk tey kii nañ xam ne faasiq la kii nañ xam ne yéefar la bu mel noonu dafay am yeneen yu ca yoo xam ne yu rëy rëy la ki nekk faasiq ci misaal kenn duutu ko seedeloo dara fu ñu témoin bokk ci buñ doon séentu weer mu ñëw ne gis naa weer ba moo ñàkk koo wax ñooyam kenn du ko geesu kiñ xas ba ne ci waa bi daal la bokk kooku dañ ko war a teg fële kenn du jëlee ci moom xam-xam dañ ko war a ber sax balaa wàll nit ñi wala muy tasaare bi daal bi seen biir ki nga xam ne yéefar la su boobaa dañ koy rey suñ ko tuubloo mu continuer ci kéefaram googu su boobaa dañ koy rey suñ ko xasee rey ña nga xam ne ñooy jullit ya duñ ko donn ay jabaram duñ ko ténj dañuy kooku ay mbi atte la yoo xam ne suñ ko xasee atte nit leneen la lislaam tegoon ci kawam la ca war a teguwaat moo rëy rëyin woo xam ne lislaam bàyyiwu ko ci mbedd mi kenn ku nekk di ko wax sa moroom su ko kii waxee kii wax ko su boobaa ab xastente la yàlla mën na leen boole euh, lislaam mën na leen boole ñoom ñëpp dóor su boobaa su fekkee lislaam nekk ko nag loolu mooy waral énergie bi di am fawda boo xam ne kenn ku nekk lu la neex wax soo làmmiñ te amut dara lu cay tege waaye e, bokk na ci yi nga xam ne day wane ak teengal mooy yàkkamti ci bunt boobu e, ba ca tegu moo di at tasarru fi xamli silaah wal fatki bil arwaax wa tadmiri al mumtalakat bi gayri xaq yàkkamti lool ci fab ngànnaay ak xeex jullit yi tey li tuuru ci ay deret ci kaw loo xam ne jullit mooy tuur dereti julit te léeg-léeg ci tuuru diine lay doon kenn xamul nu mu loolu ak teengal moo koy jur ak ñàkk a dégg diine bi sallallahu alayhi wa sallam jii mu fi andi woon loolu mu ne woon bu leen dellu ma gannaaw nekk ay kuffaar yadribu baadukum riqaaba baad bu leen dem ba kii lenn ci yéen kenn ku nekk di di cor loosu moroomam weddi la ma fi andi woon bu leen dem ba mel noonu mukk dénkaane boobu mu dénkaane woon su fekkoon ne nit yi noonu lañ mel tey lu mel ne li leen dal du leen dal bokk na ci mandarga yooyu eh, te mooy bi may ciy mujj a tudd moo di al ixtifaau wal uzlatu an al mujtama bi itibaarihi mujtamaan jahiliyan dem ba mu yàgg nga doon as kuréel su tuuti beru fi birëb feeñatoo kenn gisatu la la ngay ràbb daal yàgg ña ngi koy bokkal di ràbb rek yéen a ko xam nit ñi da ngay rombante ñoom di dem ak ñëw waaye kenn xamut ci loo nekk loolu soo demee ba gis ko ci mbooloo wala ci as kuréel xamal ne ña ngay def aw ay moo tax Omar ibn Abdul Aziz da doon wax ne diine jii doo gis ñett ñoo xam ne wéet nañ fi bërëb di déeyante ca diine ja nee na lu dul aw ay la ñuy ràbb ndax diine ji dafa leer leerin woo xam ne lu ñuy nëbb di ko déeyante amu ci lépp lañ mën a wax moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa wax yonente bi qul haadihi sabili nit ñi ne sama yoon a gi yëkkati ko ñëpp gis adoo ila allahi ala basiratin ana wa man ittabaani wa subhanallahi wa ma diine ji lu ñuy làq ak di ko yum yumal ci biir ak yooyu nekku ci pas-pas bu leer moo ci nekk gëm yàlla moom dong di ko jaamu ak ay yonentam topp ko jaar ko ci alquran jaar ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu juyoog loolu nga sànni ko ci àll ba loolu mooy diine ji fu nekk lees ko mën a wax fu nekk lees ko mën a yëkkati rafetal jikko yi jëf leen waaye nag su fekkee ne làqu fi ay mbirëm ak ràbb ay mbir ak jàpp ne société bi yépp wëlbatiku nañ doonatuñ ay jullit ba benn kuréel rek moo fi des boo xam ne ñoom ay jullit lañ loolu mooy indi beru gu metti gi te loolu mi ngi am ci amin wu waa waar sax am na genn kilifa guñ doon dundal fi béréb ci benn université nga xam ne njiitul université bi eh, ku ku xiroon la ci sàmm eh, mbooloo mi fi nekk li ñuy dund ak étudiants yeeg seen doxin eh, mu ne dafa dafay seetlu saa buñ taxawalee julli ajjuma ci biir daara ji daal mu seen ay nit ñoo xam ne ñoom dañuy won àll bi gannaaw di dem te xamut fuñ jëm loo xam ne daal mat na ñetti nit te lii ma lay wax nii ci dëkku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la amee nee na ma bàyyi ba benn ajjuma ma seen leen ñu dem ma teeylu leen ba ba mu war a mat waxtu ab diir maanaam ma waaxu fekk leen fañ nekk ma dikk fekk ñaar ñi toog kenn ci di xutba ci aw xur boo xam ne ay montagne leen séq ah, nee na ma toog déglu ko mu xutba ba jeexal daal di julli nee na ñu julli ci suñu gannaaw bi ñu sëlmalee ma ne leen waaw lii lu mu doon ñu ne dañuy julli àjjuma nee na ma leen yéen yéen a ngi ci dëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam imaam yi jàkkee yonente bi ma ngay julli àjjuma di xutba bu dul loolu université bi ngeen nekk ku am ngànt imaam a nga fi ñuy xutba joo xam ne professeur la boroom xam-xam la nit ñi di dajaloo di jëriñu ci ñoom su ngeen dee xutba mun leen a dem ci jàkkee yonent bi wala ngeen ñëw fii ci jàkkee université bi ka woon mu ne ko suñ la dee wax dëgg noonu danoo gëm ne ñu ñi ngay wax ñëpp duñuy jullit maanaam dañoo génn diine ji ndax ku ci nekk def nga loo xam ne ku ko def da ngaa tubbi comme que dañoo tubbi nag noonu doon jullit ci seen gannaaw yëkkategu ci gannaaw ba ak yeneen i mbir jërut sori waaye nga xool teengal fi mën a dem ba àgg fa ak nit ci wàllu diine kon beru gi société bi ak jàppale société bi lépp réer na ba ñi fi gindiku mooy diw ak diw ak diw nga mën leen lim ñu doon as lim kooku feebar la boo xam ne bu xasee gaar nit ki kooku musiba mu mag la moo xam ne dafa aajowoo faj kon loolu ay signe la yoo xam ne ku ko gis ci sa bopp wala nga gis ko ci sa mbokk tàmbali ko laay biir te xam ne ak teengal ni nga koy dugg e sabab yi nag lan moo tax nit ki di dem ba mu yàgg nekk ci diineem di góorgóorlu ñëpp xam ko ci mu jub jaar ci siraatul mustaqim ëppul yéesul dem ba mu yàgg ñu gis ne moom mii mu ngay ëpp e, li koy waral bokk na ci ittibaa al mutashaabih min nusuus al kitaabi wa sunna wa tarki al muhkam alquran ak sunna dafa am ay textes yi ci nekk yoo xam ne su fekkee nit ki dafa ñëw rek songu alquran ak sunna di liiral boppam di xool mën naa liir benn texte boo xam ne su xamul nu ñuy jànge ak texte bi ban la jàkkaar lool ak bii ak biir nu ñu leen di boolee xam-xam bu xóot boobu su ko xamut mën naa jël benn texte rek atte ci àdduna ak li ci biiram dal koy jëfandikoo ci boppam jëfandikoo ko ci ci nit ñi kooku ci sabab yi ci la bokk eh, dafa am lu ñu tuddee ci alquranul karim ak même ci sunna sax waaye ci alquran nag la gën a siiwee moo di bépp texte boo xam ne dafa ñëw leer nañ kenn amu ca nattable kooku lañuy ñu tuddee almuhkam am bu ñu tuddee almutashaabih mooy bépp texte boo xam ne dafa yor ay maanaa yu bokkut dafa yor ay maanaa yu bokkut kooku moo doon xam-xam bu jafe ba li leer moom xam ko jafewut qul huwa allahu ahad neel yàlla kenn la koo ne kenn la jeex na lu lëndam amul foofu waaye nag texte yi nga xam ne dañuy ñëw nga xam ne ku xool ne ah lii de day mel ne lii lay tegtale keneen xool ne ah lii de dafa mel ne lii la keneen xoolaat ne lii de dafa mel ne lii la foofu nag la ñuy soxlawoo la borom ba tabaraka wa taala waxoon wa raasixuuna fi l ilmi yaquluuna amanna bihi kullu min indi rabbina ndax ni ko borom bi waxee eh, wàcce na alxuraan di la wax huwa alladi anzala alayka alkitaaba moo wàcce ci yow alquran minhu ayatun muhkamaat am na ay aaya yoo xam ne yu xeweñale yu leer nàññ la yoo xam ne ku ko gis te xam dara dégg ko mu ne nag hunna ummul kitaab loolu nag mooy base mooy cosaan ci alquran karim mooy léppam dafa leer waaye nag am nay benn benn nag de moo tax mu ne wa uxaru mutashaabihaat am na nag yeneen yoo xam ne moom moom dañoo lënt leeraluñ ko fa amma alladina fi qulubihim zaygun ñi nga xam ne seeni xol dañoo jeng fa yattabi'una ma tashabaha minhu ñooñu buñ dikkee seetuñu la leer waaye li lëndëm lañ soxla foofu nag foofu la musiba bi nekk ki jóg demut ca la leer mu jëfe ko li leerut mu dem laaj ko borom xam-xam waaye dikk bàyyi fa la leer nag jëlal boppam la leerut nag xuus kooku day réer maanaam li ñuy tudde fétal euh, mooy di dox ci yoon ba mu yàgg nga ne daal yoon wi dafa gudd xaaral ma jaaree ko nii danaa ko mën a doge te mooy gën a gàtt nga def ko nag ci àll boo xam ne bu lëndëm la boo xam ne forêt boo xam ne bu bari ay garab ak lëndëm la nga def ko maanaam féetal di dem ba mu yàgg xamatoo sax yoon woo penku la féete wala soow ko loolu moo koy dal ki topp lu lënt loolu moo koy dal ki topp yoon wi di dox nag te yoon woowu dafa gudd sax donte dafa gudd moom ci yoon wala jaar yi nga xam ne dañoo leer nañu aw yoon wuñ xàll ba mu leer la ka ci jaar moom amul problème ki jóg nag bàyyi fa loolu te amul xam-xam kooku moo réeral boppam moo tax euh, borom bi tabaraka wa taala lam daaneele moo di warraasixuuna fi l ilmi yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina ca aaya ja wa ma yaalamu tawilahu illa allah warraasixuuna fi l ilm lu borom xam-xam yoo xam ne noonu lañ ko firee yi nga xam ne ay mutashabihaat la suñu borom tabaraka wa taala rek moo xam lu muy firi ak ñi nga xam ne dañoo sax ci xam-xam raasixuuna fil ilm mooy ñu jàng xam-xam ba sax ca ba seen ndëggu dëgër ba ñu taxaw diis borom xam-xam yooyee yillënt dégguñu ko dañ ko war a delloo ci ñoom ñu leeralal ko nit ñi moo tax nit ki faw mu xam fi mu toll nag door a mën a gindiku waaye boo yéegalee sa bopp foo xam ne àggoo fa bëgg a dégg loo xam ne xamoo ko loolu mooy indi jafe-jafe al imam ahmad ibn hanbal <coughs> jëlee na ci amr ibn shuaib an abihi an jaddihi maanaam abdullah ibn amr ibn al aas nee na benn bis dama toog man ak sama benn mbokk ci benn jataay boo xam ne nee na jataay boobee duma ko fàtte mukk ndax jariñ yu bari yoo xam ne jariñoo naa ko ca moo tax mu ne maa uhibbu anna li bihi xumra naam jataay la boo xam ne la ma ca jariñoo tax na daal e, dara gënalu ma ko mu ne dañ toogee ci jataay boobu wa ida mashyaxatun min min saxaabati rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam julu juluusun inda baabin min abwaabihi mu ne am ay mag nag yoo xam ne ci magi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ bokk Abdullah ibn Amr ibn al ci gone yi la bokkoon ndax baayam moo doon Amr ibn al-As kooku ci mag ñi la woon mu ne fa karihna an nufarriqa baynahum bin fekkee mag ña toog ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nun gone yi bin dikkee bëggunoo dugg ci seen biir di jaxasoo waaye danoo toog ca côté ba bëggunu mag toog gone toog ci diggante bi mag toogaat gone toog ci diggante bi ma suba an nufarriqahum mu ne fa jalas naa xajaratan mooy nu toog place boo xam ne noonu rek noo fa toog nee na ñu dem ba mu yàgg ñu tudd benn aaya ci alquranul karim fa tamaaraw fiiha nee na ñu tàmbali di werante xatta irtafaat aswaatuhum nee na ñuy werante ba seen kàddu yi yëkkatiku ba àgg ca kaw kon àgg na ci xuloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci biir di dégg nee na bi loolu amee fa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mudiban nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam génn ànd ak mer xatta xmarra wajhu ne dafa mer ba boo xoolee xar kanam bi da ngay gis ni mu xonqe nee na mu ñëw sànni leen suuf suuf si mu xëppoon yor ko ci loxoom mu xëpp leen ko kooku kon mer la moo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu àggee foofu rek mbir ma rëy na wa yaqulu mahlan ya qawm teey leen def leen ndànk bi haada uhlikat al umamu min qablikum lii day ci la xeet yi leen jiitu ci lañ alkoo woon bi ixtilaafihim ala anbiyaihim juuyoo giñ doon juuyoo ca la leen seeni yonente andiloon wa darbihim alkutuba baadaha bi baad ak niñ doon jële téere yàlla yiñ wàcce bi aaya ñi fénqalikog bële jële bi fénqalik bii lii moo alagoon ñi leen jiitu mu teg te ne leen inna al qurana lam yunazzal yukadibu baaduhu baada alquran kenn wàccewu ko ngir lenn ci alquran di weddi la ca des maanaam alquran du weddi alquran bal yusaddiqu baaduhu baada alquran aaya boo ci gis bu beneen ba ñëwee day dëggal ba ko jiitu woon mu ne fa maa araftum minhu faamalu bihi loolu mooy li ci ëpp solo lu ngeen ci xam jëfe leen ko wa ma jahiltum minhu farudduhu ila aalimihi lu ngeen ci réere delloo leen ko ka xam kon loolu mooy njàngale yonente kii mooy manhaju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi taamul ma an nusuus jëf leen teem ak texte mooy loolu orientation boobu la nu jox alquran wàccul am ci benn aaya boo xam ne day weddi la beneen ba di saxal lépp bokk li ñuy wax lépp bokk lu ñuy wax waaye nag da ci am loo xam ne am na ku ko xam am ku ko xamul li ñëw nga xam ko nee na loolu jëfe ko li nga xamul delloo ko ko ko xam mu gindi la ca loola waaye fétalal sa bopp mooy indi mooy indi réer Omar ibn al-Xattaab radiallahu taala anhu mi ngi wax ne aw nit day danañ mës a ñëw ñoo xam ne yaxudunakum bi shubuhaati alquran ñoo xam ne dañuy ñëw dem ci alquran indil leen ay xeeti lënt yoo xam ne suñ leen ko joxee lu lënt lay doon ah nan la ñuy def mu ne fa xuduhum bi sunan suñ leen indilee lëntub alquran nee na na ngeen leen tontoo sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna asxaaba sunani aalamu bi kitaabillah ki jàng sunna ba xam ko kooku moo gën a dégg alquran al karim kon kooku orientation bu am solo la jóge ci alxalifatu rachid omar ibn alxataab radiallahu taala anhu moo di alquran sunna dafa ñëw ngir di ko leeral yàlla xam na ne lu bari lu nekk ci alquran bu dul woon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey kenn ku koy jëfe du am wala ku xuusal sa bopp da ngay réer da ngay réer waaye sunna nag moo ñëw wax la lii lu mu doon moo tax jàng xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tax a dégg alquran ku jàngul xadis doo dégg alquran yow nag jàngoo alquran jàngoo xadis ba noppi ñëw nag sañ a xuus nag loolu moo bari lool ci jamono tey bokk na ci li ko leeral ba tey eh, ibnu Wahb dafa génne mu ne Bukayr dafa laaj Naafi Naafi kenn ku ne xam na ne ci taalibe yi gënoon a jege Abdullah ibnu Omar ibnu Xataab ci la bokk mu ne ko kayfa rayu ibnu fi lxaruriya Abdullah ibn Omar nee na nan la gisee woon da ko laaj dafa laaj Naafi' ne ko Abdullah ibn Omar bii nga xam ne yow moom nga takkooloon di jàng ci moom moom luy xalaatam ci xawaarij yi xam ngeen ne yi ñuy wax yépp xawaarij yi noonu lañ meloon qaal yaraahum shiraara xalqillah nee na daf leen gis ne ñooy ñi yées ci mbindeefi yàlla yi innahum intalaqu ila ayatin unzilat fi lkuffar fa jaaluha fi lmuminin mu ne ñooñu dañoo ñëw ci alxuraan fekk aaya yoo xam ne ci yéefar yi lay wax nee na ñu indi ko teg ko ci kaw ñi gëm yàlla nee na bi loolu amee fa surra said ibni jubair min taalik said ibni jubair am mbégte lool ci loolu mu dégg ne moo doonoon taxawaayu abdullah ibni omar ibni alxataab mu daal di ne mimma yatbacu alxaruriya min almutashaabih qawlu llahi taala wa man lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaika hum alkaafiruun mu ne bokk na ci aaya yi nga xam ne dafa lënt ci xawaarij yi mooy li borom bi tabaraka wa taala wa man lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaika humul kafirun loolu lu muy firi bu fekkee da ngaa ñëw rek firi aaya bi yow ci kaw nga xam ne delluwoo ci xadis delluwoo ci waxi salafu saalix waaye texte alquran bi nga jël mooy ku attewoo lu dul alquran ab yéefar nga mu jeex aaya bi loolu lay wax mu ne wa yaqrinuuna maaha nee na aaya boobu buñ ko jëlee dañ koy lënkaleeg beneen aaya moo di summa alladina kafaru bi rabbihim yaadiluun moo di ne ku weddi yàlla kooka yemale nga yàlla ak mbindeef mu ne bu fekkee nag xawaari yi biñ jëfandikoo ñaari aaya ne buñ gisee benn imaam boo xam ne xakama bi ghayril xaq bu àttee àtte bu juuyoo ak dëgg lu ñuy wax dañuy wax ne kooku kafara maanaam tàbbi na ci kéefar wa man kafara adala bi rabbihi te képp koo xam ne dugg na ci yéefar nee na kooku yemale nga yàlla ak keneen wa man adala bi rabbihi faqad ashraka nee na kon dañ koy àtte ne kii ku bokkaale la te ab yéefar la fa hadihi al ummatu nee na su ko defee ñu ne kat na ci lu baaxul te nit ñi ànd nañ ca ak lo moom ca loola mooy ñi ngay liggéey ak moom ca loola kon ñoom ñëpp ànd nañ nekk ay kufaar nekk nañ ay mushrikoon subhanallah xoolal loolu yi nga xam ne xawaari ji noonu la ko euh, ibnu wahb bu nett lee noonu lañ doon attee nee na lu cay tegu fa yaxrujuuna fa yaqtuluuna man man ra aw aw man ay ayta noonu la ko waxee ne su ko defee la cay tegu mooy ñu génn kuñ dajal rek rey parce que jàpp nañ ni ñëpp dañoo tubbi fekk loolu lépp ñu ngi ko teg fan ci kaw ne yata awwaluuna hadihi aaya xadis boobu ma la nekk li Buxaari génne na ko muallaqan euh, Ibnu Xajar wéral na ko ci Fatxul Baari ak ci taxliqu taaliq kon alquranul karim téere la boo xam ne téereb gindee la bu jàngale la téere téereb jubbanti la waaye sunu borom tabaraka wa taala da koo soob mu def ci aaya yoo xam ne ngir ñu dégg ko dañuy dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu ci njàngale mi nga xam ne noonu la jàngale woon ak ni mu tëree woon ndax su du woon loolu kenn ku nekk dangay mën a bàyyi fële sunna ñëw ci alquran waaye daf leen a taqale ñoom ñaar alkitaabu wa sunna ñooy ànd nit ki door a nekk ab jullit boo xam ne ak jullitam dafay mat alxatibul baxdaadi génne na ci taarix mu ne kenn ci xawaarij yi pour feddali li ma doon wax léegi ne dañ ko indi ci maamun maamun kenn ku nekk xam na ne ku jàngoon ba nekk boroom xam-xam la donte ci buntub asifaat euh, gindikuul woon ca booba bunt waaye ku tàngoon la ci xawaarij yi ñi nga xam ne dañoo yéefarloo loo yi ba noppi di leen rey nee na biñ ko andilee waajo ju nga xam ne ci xawaari ji la bokk waajo bi mu agsee dafa dugg rek agsi fi moom toog nuyoowul sax parce que jàpp ne dikkul ci ay jullit mu ne ko maa xamalaka ala xilaafina waaw yow lu tax nga juuyoo ñun mu ne ko aayatun fi kitaabillahi taala benn aaya boo xam ne mi ngi ci téere bi yàlla bi maamun ne ko wa maa hiya mu ne ko wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika hum alkaafiruun mooy aaya bi ma tudd sànq fa qaala lahu almaamuun alaka ilmun bi annaha munazzala ndax da ngaa xam ne lii alquran la joo xam ne yàllaa ko wàcce mu ne ko ah waaw waaw mu ne ko wa maa daliluka lan mooy sa dalil ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allah alquran la ci boppam mu ne ko ijmaaul umma mu ne ko parce que askan wi ñoo dëppoo ci ne aaya boobu alquran la man it ma xam ne alquran la mu ne ko kama radita bi ijmaihim fi tanzil farda bi bi ijmaihim fi tawil ni nga nangoo ne ñoom dëppoo nañ ci ne nangu nga ne alquran la parce que dëppoo nañ ci ne dafa wàcc kon nangul ne itam dëppoo nañ ci ne lii lay firi dafa am lu muy firi lu bokkut ak li nga jox yow bi mu ko waxee loolu nag qaala sadaqta assalaamu alayka ya amiral muminin nee na mu door ne ko wax nga dëgg door koo nangoo nuyu ne ko salaamu alayka ya amiral muminin kon lay wi mu ko jox moo di yow munoo bañ a dellu ci boroom xam-xam yi la jiitu woon ndax su dul woon loolu doo mën a saxal ne lii alquran la waaw kon lu tax doo dellu ci ñoom ci niñ firee aaya bi biñ la ndax alxuraan la wala du alxuraan da nga ne alxuraan la ma ne la foo jëlee loolu nga dem ci borom xam-xam yi waaw borom xam-xam yi ñi la indil alxuraan dina la lii alxuraan la ñoo la ko firile nii lu tax loolu itam doo ko jëlee ci ñoom wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu ulaikum alkafiruna loolu doo ko déggee noonu rek ci kaw waaye borom xam-xam yi daa am nañ ko firee moo di kan mooy nekk yéefar ci ñàkk atte woo alxuraan ay la doon ay maratib la doon yoo xam ne yu xóot yoo xam ne borom xam-xam dañ ko jàng indi ci seeni dalil kenn bokk ci ak sa moroom ki nga xam ne xam na ne alquran a gën lépp waaye mënu parce que am na yeneen i ngànt muy tudd ay lay yu joxe yoo xam ne xam na ne alquran a gën waaye lii mënu ko ndax nit ñi lii lañ def ndax nangam ak nangam ndax nangam ak nangam ndax nangam ak nangam kooku bokkul ak ki nga xam ne xam na ne alquran moo yeneen yi ci def rek ñooyam bu ci neex nga tànn bokk kooku bokk la ci nga xam ne daa jàpp ne yeneen yi nit ñi indi sax moo gën alquran noonu nag la ko boroom xam-xam yi toppe di ko détaillé kenn ku ne ñi ñu ne ci tollu fii lii moo dib atteem ci tollu fii lii moo dib atteem ci tollu fii lii moo dib atteem waaye atte boobu kañ lañ koy teg ci kawam mooy gannaaw boo xamee ne bépp ngànt boo xam ne ngànt buy tee ñi yéefarloo nit booba dañ na su boobaa atte boobu door ñëw ci kawam ndax kat nit ki dana tàbbi ci kéefër te fekk du yéefër nit ki dana tàbbi ci kéefër nga mën ne kii lii mu def kéefër la waaye suñ ne laa ndax yéefër la nag moom ah déedéet ngay mën a wax wala xawma ba kañ ba bañuy jaar ak moom fi ñu war a jaar ak nit ku ñuy atte su doon lislaam ay atte tey suñ dikkee ni diw sàngam mii kat def na loo xam ne kéefër la dañ koy woo mu ñëw ñu laaj ko waaw yow li nga def su ne ah, xawma ko woon de su boobaa looy wax da déedéet ki xamul du doon ku xamul dañ koy xamal su ne damaa juum kooku ngànt la su ne dañ maa forcé ci loolu kooku ngànt la kon am na ngànt yoo xam ne faaw ñu gëstu ba xam waa ji lan moo tax mu tàbbi ci kéefër gii waaye du caagi ne soo attee ne nit tàbb ne ci yéefar rek daan ne kooku yéefar la soo ko defee ba watuut ku mas a juum tàbbi ci kéefër ku nekk Ammaar ibn Yaasir kay wax dëgg yàlla bañ ko jàppee dóor ko ba sonal ko lam wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kéefër la waaye ndax kenn yéefarloo loo ko au contraire alquran dafa wàcc ne illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ki nga xam ne dañ ko forcé te fekk xol baa nga dëgër këng ci iman su waxee ci làmmiñam loo xam ne kéefër lay kooku yàlla jàppe wu ko yéefar doomu aadama yi waruñu ko koo jàppe kon daal yéefarloo moom doonut loo xam ne lu yomb la texte yooyu ma andi yëpp dañuy wone ne téereb sunu borom tabaraka wa taala bii ka koy dégg mooy koo xam ne sunu borom tabaraka wa taala wërsëgale na ko xam-xam waaye wërsëgale na ko ak dégg akub gis bu sori xam-xam ak dégg ak gis bu sori al ilmu wal fahmu wal basira yooyu mënuñoo bañ a ànd ndax kat tasaabuh bi nga xam ne mooy am ci alquran li ñu tudde mutasaabihaat yi am na ci yoo xam ne ay umuur nisbiya idaafiya la maanaam da koy koy tudde mutashaabih maanaam lu lënt la waaye fekk daa am ñum lënt ci ñoom waaye am na ñum lëntul ci ñoom su ko defee ñum lënt ci ñoom ñu delloo ko ñum lëntul ci ñoom loolu la ñuy xamee ne boroom xam-xam yi seenu nekk fi dafay doon loo xam ne sunu njariñ la moo di sun sun dox bu gudd bii nu nekk muy doxub dugg ci lislaam parce que yéene nekk di ci dukk dukki ba keroog ñuy wuy ji suñu borom tabaraka wa taala danaan dajeeg ay pakk yu bëree bare bari ci yoo xam ne yan yi ci aw déggiin la yan yi ci wàllu xamin la waaye amuk borom xam-xam yi ki ci kaw suuf lim jariñ mooy mën a dellu ci ñoom di leen laaj suñ demee ba pakk am rek au lieu nuy puusal suñ bopp wala nuy xuusal suñ laaj waaw nangam ak nangam ak nangam moom lan lan laay def borom xam-xam ne la defal nangam ak nangam ak nangam nga daan gundi ko moo tax rabi ibn xaysam rahimahullah day wax ne yaa abdallah yow jaamub yàlla bi maa allamaka allahu fi kitaabihi min ilmin fahmadillah lépp loo xam ne yàlla wërsëgale na nga xam ko ci téeréem bi nee na santal yàlla wa ma stasara alayka bihi min ilmin fakilhu ila aalimihi loo xam ne yàlla joxula ko ci xam-xamub alquran bii nee na delloo ko ka ko xam wala tatakallaf bul jéem a xam loo xamul borom bi tabaraka wa taala tere na loolu ndax yàlla nee na qul ma asalukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla digal loolu nee na ko waxal nit ñi ne leen man de du ma def takalluf takalluf mooy loo xam ne xamoo ko nga koy jéem jéem a xam-xamlu ci ci sam xel rek di ko jéem a nattale ne danaa fexe ba xam ko wala loo mënul nga di ko jéem a man man lu loolu lépp ci takalluf lay dugg li ma mënul li nga àttanul bu ko jéem a yem moo tax même ci jaamu yàlla da dana ñëw ci kanam ne nit ki jaamu yàlla da ciy def lam man tam man a sax donte lu tuuti la naafile yi nag moo tax ñuy wax danga nga ciy def la nga man tam mën a sax waaye bul xëy rek yanu loo xam ne attanoo ko loolu danañ ci ñëw ci kanam kon daal tomb bu njëkk bi ngeen ñu bañ a xuus di yaatal lool lool te waxtu bi moom day gaaw a dem eh, moo di aljahl réer li kawnihi sabab ar rais lil qawli ala allah bi gayri ilm réer mooy sabab si gën a rëy ci waxal yàlla lu mu waxut kooku moo tax bokk na ci sabab yi gën a indi xulu ñaare ci réer li ko waralal réer gi tayeel ci sàkku xam-xama nga ca tëdd rek fi benn béréb jàpp na ñëpp daal lu ñu xam war nga koo xam parce que nit nga te yor ngam xel wala nangam wala àgg nga ci martaba boo xam ne waratoo réere dara ci askan sàngam nga bokk wala nangam nga sant kon borom xam-xam nga war a doon li ñuy wax ci diine lu nekk war nga caa sañ a wax kooku mooy réer gi nga xam ne dafay dem ba àgg ci nekk réer goo xam ne guñ doublé la maanaam aljahlul murakkab réer gu toggaloo mooy kii réer na ba noppi moom yëgul réer na boo dégloo suñ réew mii nit ñi ni ñuy waxe ci réer googu lu fi tasaaroo la moo di ku réer te yëgul ne dafa réer li ko waral mooy dañoo jàpp ne diine ay xalaat la lu yomb la ba tax na boo jékki woon jékki rek da koy dégg sax léegi rek ci rajo ku jekki jékki laaj benn masala ne nit ñi lu ci waay xam rek nga wax nit ñi téléphoné di wax kii ne man di nii laa ko gisee kii ne man de ñoo laa ko gisee ci diine ka jàng ak ka jàngut ak ka diine ñor ak ka diine ñëw te kenn ku nekk di wax xalaatam lu tax mooy jàpp nañ ne diine moom lu yomb la war a yàlla xam ne nag xeeti fànn yi ñuy jàng di ko xarañe di ci xóot li ci gën a jafe mooy xam-xamu diine mooy bi ci gën a jafe moo ci gën a xóot it nag moo ci gën a tegu it nag ci ay régal yoo xam ne yu leer naññ la yoo xam ne soo xasee ba dog yoon woowu la ngay jëkk a def mooy da ngay xam sa bopp xam fi nga toll yow ak fa nga sañ a waxe ngay waxe foofu la nga sañu ta wax nga xam ne loolu xamoo sañoo koo wax moo tax euh, kenn ci borom xam-xam yi day wax dañ koy wax ne ko yow dañoo gisoon bu yàgg yàgg da ngaa bari woon i wax lu ne nga dugg ci di werante def nangam ba mu yàgg ñu gis daal nga jékki-jékki ne tekk melatoo na nga meloon bu jëkk mu ne waaw booba damaa xamagul woon sama bopp bi ma jàngee nag tuuti ba ba sori nag ba xam luy xam-xam ndekete ci laa xame man fi ma toll ma ne man ndekete nekkuma woon ci lu ma xam ci laa téye sama làmmiñ nag fas yéene xam door di waxati nit ñi noonu étape yooyu dañ koy dund nit ki dana toll foo xam ne moom ci boppam jàpp na ne àgg na fépp lu ne sañ na caa dugg lu ñuy wax lu ne sañ na caa wax débat bu ne sañ na caa dugg am na fitu lu ñuy wax ci diine lu ne ak lu néew ba kawe kawe sañ na caa yor xalaatam boo xam ne di say dëgër na nii la boroom xam-xam yi ko jàng buñ dikkee mën naa taxaw sax werante ci ak ñoom waaye ci kooku bu ngoon ti ñëwoon di jàng ba xam mbir yi reegal yam tegu ak lii muy wax fa mu tegu ak ak ak màndaxe mi mu am manam poids bi mu am ak xóotaay ba mu toll ci diine su jàngoon ba agsi ci loolu su geesoo gannaawam dane waaw xanaa kii de du man la ma doon xalaate démb ak li ma gis nii tey nit ñi day ñu am sago lañ ne kon danañ dal sama ko wala danañ ma def nàngam parce que li ma doon nekkoon lépp ay njaaxum la kon euh, réer ci boppam dafa doon gàllankoor goo xam ne dafay dugal nit ñi ci ak teengal ci diine moo tax lu nit ki man ci sàkku xam-xam bu mu ko caaxaane du yëfi caaxaan te waxal yàlla lu mu waxul ci diine waxoon naa la ca ab jotaay ne moom ci yi gën a rëy ci la bokk ndax ay njaaloo tooñ nit ñeeg yenn bàkkaar yeeg ba ci bokkaale sax boroom xam-xam yi dañ ne waxal yàlla lu mu waxut moo ko gën a rëy ndax borom bi tabaraka wa taala noonu la ko tëree ca saar wa qul innama xarama rabbi alfawaxisha ma dahara minha wa ma batana wal isma wal bagya bi gayri alxaq wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun ne daf ko toftale toftale boo xam ne bu mu indi rek ba muy indiwaat mooy gën a rëy ba ca tegu gën a rëy ba àgg nag ci wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun ci dem ba àgg ci di waxal yàlla lu mu waxul am fit woowu ba noppi di ko def kooku yëj itu yëpp maasale na leen dana bokkaale dana naan sàngara dana sàcc dana jël lu ñuy wax ci lu bon lu nekk rek kooka dootu ko mën a bàyyi eh, tomb ba ca tegu ci sabab yi nga xam ne mooy waral nit ki teengal ci diine moo di tawallil ansaaf maratib al qiyaadati al ilmiya ñi nga xam ne soriwuñ ci xam-xam ba noppi ñu walbatiku jiital leen ci xam-xam wala ci diine ñu walbatiku jiital leen ci diine ñooñu mën nañoo indi façon teengal wu ne ci diine mën nañu indi teengalu yëkkati nit ba yóbbu ko foo xam ne àggu fa comme li ma ko doon waxe sànq mën nañoo indi teengalut itam màbbag diine ji ba àgg foo xam ne loolu bokkul ci diine ji ñu sos ko boole ko ci loolu nag ci yiñ gën a nattoo xeet wi ci la bokk te it li gën a mën a tasaare aw nit indi ak jooyoo seen diggante ci la bokk euh, bàyyiwul benn kuréel ndax ci diine lépp lu nit di jiiti ci diine lu mu mën a doon xam-xam moo war a tax nit ko di jiite loolu kon su fekkee diine dem na ba am xeeti yu ci dugg yoo xam ne ci wàllu donnante ci diine ñu ne nit ki bu faatoo ci diine doomam moo war a ñëw donn ko ca diine ja jiite mbooloom diine ma te tëgaluñ ko sarti ne daa war a xam lii ak lii ak lii door koo mën a def su fekkee ne loolu amut kooka baa ngi am foofu mooy ña ba màbb diine ji ci wet googu danañ andi ak xuluw goo xam ne benn mu doon xuluw goo xam ne dafay wàcc ba yëkkati doomu aadama yi ba def leen ñu doon ay yàlla wala mu andi geneen xuluw goo xam ne day dem ba passé loolu su fekkee ne mbooloo yi nga xam ne nit ñi ñoo koy sosal seen bopp mu doon mboolooy yi diine mën naa tudd ay tariqa mën naa tudd leneen mën naa tudd ay association sax parce que association islamique boo xam ne woote moo ko tax a jóg ak jàngale muy tasaare diine moo ko tax a jóg ñi koy jiite ñoo war a nekk boroom xam-xam yi su fekkee nag ci wàllu organisation dañoo dem ba tubaab yi wàllu nu ban jàpp ki gën a xam daal wàllu nu ñuy tëre ay mbir nuñ koy organiser ku war a doon président ba ku nekk vice président ba kuy doon nangam ak commission ak nangam ki ko gën a xarañee kooku moo war a jiite mbooloo mi te fekk bu dee ci wàllu diine xamul dara man ngaa indi ak teengal boo xam ne ñàkk xam moo koy indi ko xamul doo ci jiite danga war a nekk boroom xam-xamu diine door a jiite mbooloom diine kon nit ñi war nañoo wattandiku bunt boobu moo xam kuréelu di façon kuréelu diine bu mu mën a doon bu mu mën doon ka ñuy jiital te ko teg seen kanam di wax na yow mii yaa nu jiite ci suñ association bii wala suñ mbooloo mii wala suñ jàkka jii wala suñ bërëb bii na nekk koo xam ne ku jàng diine ji ba xam ko la su ko defee nag yamu manqué le ko wër te kenn ku nekk nekk ca koo xam ne jàng na dara ba xam ko ca xeet yooyee ñoom ñëpp ñu indi seen man-man ak seen i xam-xam ñu boole ko organisation ba tegu ci yoon parce que wàllu organisation moom mooy nase rek am xel moo koy def buñ jàpp ne dafa doon loo xam ne alxuraan dafa wàcc wala benn leneen dafa wàcc wala jenn diine daa wàcc di leen wax ni ngeen koy organiser ni ngeen def nangam naw alxuraan daf leen a jox base yi nga xam ne ni mbirum jullit des ko war a organiser daa tegu ci yoon am naa na ngeen koy tëree kuy jiitee ku cay tegoo ki jiite lee ko war ak ka lee ko war yooyu yéenay daje waxtaaneel ko seen bopp am na ñoo xam ne ci seen biir loolu dong lañ jàng ñoom su ko defee ñooñu seen xam-xam boobu dañ koy indi mbooloo ma mën a tegu ci yoon jub ñu organiser ko doon ñu maandu mën a sàmm seen alal mën a sàmm seenub yar seen teggin seenub daawa lépp tegu ci yoon boroom xam-xam yi jiite leen nag di leen orienté ci xam-xam mbooloo moom mooy doon mi mën a mucc su loolu amut nag kooku muskila lay doon bu mag a mag moo tax ci xadiisu Abdullah ibn Amr ibn al xadis bu siiw la eh, daf ne dama dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla buy dindi xam-xam du jékki-jékki rek fàtteloo ko nit ñi ñu fàtte ko waaye ni muy def mooy boroom xam-xam yi lay ñooy faatu suñ faatoo ba boroom xam-xam amatu fa nee na lu ñuy def dañuy jiital ñi nga xam ne xamuñu su ko defee ñooña lu ñuy laaj ci diini ñoom lañ koy laaj te ginnaaw ñooy njiit moom rus nañ ne xaw ma ko rus nañ ne xaw ma suñ nee xaw ma rek ñu ne ah waaw kii lu tax ñu di ko jiital kon nit ñi ñoom it foofa lañ toll su ko defee luñ ko laaj rek fa aftaw bi gayri ilmin ñu ubbee te fekk àndul ak xam-xam fa dallu wa adallu dañuy réer réeralaate loolu moo tax yenn kuréel yi nga xam ne dem nañ ba xam ne xam-xam nekkatul charte ci seenu jiite maanaam laaj diine sax dañ koy tere foofu maanaam ñëw na nga ay kilifa yu diine yu mag yoo xam ne dañuy kii moo jiite mbooloo mi amoo fit yow tey dikk ne ah man kat damaa ñëwoon tey ngir kilifa gi nga xam ne mooy ku mag ki nga xam ne moo jiite mbooloo mi mépp te ci turu diine la damaa koy laaj si la bàyyi ndax am na lu fa nekk loo moom lañuy bañ mu feeñ kon ay mbir la yoo xam ne yu ma a bàyyi xel la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juñjaat na loolu bi nga xamee ne jenn waaye dafa jóg ne ko ittaqillah ya muhammad yow muhammad ragalal yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna min didi hada aw fi aqibi hada qawmun yaqra'una alquran la yujawizu xanaajirahum kooku mooy réer ga yonente bi alayhi salatu wasalaam dana ñëw ci xadis boobu ci kanam ci benn jataay dafa wax ba àggal wala mu def la mu def ba àggal benn waaye jóg taxaw ne ko ragalal yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko ne ba man de ñi ne ci kaw suuf maa ci gën a yeyoo ragal yàlla mu ne kii ma gis day dana bokk ci ay sëtam maanaam dana génne ci ndiggam nit ñoo xam ne dañuy jàng alxuraan te du weesu seen baat yi maanaam nañ koy jàngee ñi ko di ko dégg loola rek lañ ca am ñooña ñooña loolu màndargam réer la ndax nit ki mën naa jàng alxuraan jàngeen wu rafet mën na koo mokkal sax waaye fekk xamut li muy wax lu mu doon mën naa jàng alxuraan mën na koo mokkal mën naa xam lu mu waaye du ko jëfe sax loolu lépp ci biiru yu réer ci lay bokk kon koo ki nga xam ne moo amoon fiitu taxaw ci kaw yonente kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko war ne ko ragal yàlla kooku teengal diine weesu wut foofu ndax koo xam ne yow la xam ci yàlla ko su néew moom nga ko jëlee su lu woon ak moom ci ak lëndëm ngay dund ba ba ngay faaf nga jóg taxaw di ko wax wax jooju sa kanam kon moo lay won ne teengal am na fu muy bu xasee dugg nit ki kenn xamatul fu muy yem kenn xamatul fu muy yem kon ñooñu sonne jàng alquran mën a sonne sax jaamu yàlla waaye nag lam yatafaqahu fiihi mu ñoo xam lu alquran di wax jéemu ñoo xam maqasidum alquran alkarim eh, Suwayd ibnu Xafla eh, dafa jële ci Ali ibnu Abi Talib radiallahu taala anhu mu man day su fekkee ne dama leen ne yonent bi nee na loola lu rëy si man la saa bu ma nee yonent bi sallallahu alayhi wa nee na nee na lool de ma ma yéeg ba ca montagne ma gën a kawe ci montagne yi ngeen li gis ma tëbe foofa daanu ci suuf faatu loolu moo gën a woyof ci man ma waxal yonent bi lu mu waxut Ali ibn Abi Talib mooy wax mu ne su fekkee dama leen di wax sama waxi bopp nag te fekk ci jamonoy guerre lañ nekk guerre moom naxante la ak warante lu waaye mën a jëf leen rek jëf leen sama waxi bopp waaye yonente moom lu ma leen wax ne moo ko wax kooku bu leen ci am lu ngeen di werante loolu introduction la boo xam ne daa am lu mu bëgg a wax mu ne dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne kon daf leen di bëgg a wax loo xam ne yonente bee ko wax nee na sa yaxruju qawmun fi axiri zaman dana am nit ñuy feeñ ci mujj gi jamono ahdaathul asnaan nee na ñoo xam ne ñu ndawe lañ ci ay at ay xale sufahaul ahlaam ñu gàtt ay xel seeni at day ndawe seeni xel itam day gàtt yaquluuna min xayri qawli albariya nee na wax ju baax la ñuy wax ci seeni làmmiñ ngeen di ko dégg xoola yooyu melokaan waaye nee na laa yujaawisu imaanuhum xara xanaajirahum nee na seenu ngëm yàlla weesuwul seen baat yooyee ñuy wax ngeen di ko dégg na min addiini kama yamruqu sahmu min arramiya nee na saa ñu xëyee ñu ngay génn ci diine gi taqalikoo diine ji comme fett gi ñu xam ne da nga koo sànni bal ba di dem ni muy tàqalikoo ak jëmmi fett gi ci boppam noonu la ñuy tàqalikoo ak seen diine kooku musiba la loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ne danañ dem ba gis ko waaye nga xool mandarga yi mu wax ñu ndawee la ñuy doon ci ay at xam nga ndaw dana toll foo ne aw tàngoor lay àndal woo xam ne moom mën na ko dugal ci lu ne waaye la ca tegu mooy xel yu gàtt ya la baaxoon ci xel yu gàtt ya mooy nangoo dellu ji ku tane ku leen tane ci xel waaye loola itam du ca am boole koog di wax baax parce que yu baax it lañ yow sell nag sax waaye nag ñàkk gaa dell ci ku leen mën a jariñ moo tax ñu fétal moo tax ñu mën a dem ba génn diine te fekk jàpp ci diine lañ bëggoon Euh, bokk na ci yi nga xam ne itam dafay indi al xulu muy ak teengal mooy sababu ñeenteel ba mooy al axdu bi baadi al adillati wa tarki ma siwaha jël lenn ci dalil yi leen lenn yi maanaam ñëw ci benn xadis dagg ko jël leen la bàyyi la ca des wala nga ñëw ci bunt bu yaatu xadis yu bari ñëw ci nga ñëw na ca cuqet benn wala nga jëlub xadis te déggoo ko fas ko yéen i jëfe yooyu yépp day andi ay musiba jàng daal mooy maxraj bu mag bi jàng ba xam te li ngay xam nga di ko jëfe foofa la yëf yi nekk xam nga ne waa ji ñëw ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ku ciy togg ci ci wàllu jëflante sociale bi waraatoo dox diggante jullit yi ku ciy togg te fekk li ngay togg bariwul te xam ne mën naa xeeñ say dëkkandoo nee na na nga bari soos ba ak diw ga ndax soo amut loo leen joxe nga tànq ca soos boobu jox leen ci dimbali leen ci nee na benn waay ñëw ci dëkku kow bi di togg defar ak diwam ba àggal tànq koobu ak diwam ñëw ci nit ñi di leen ko naan loo kooku ne ko baax na man du ma ko naan mu ne ko faawu nga naan ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne na ngeen leen ko jox ñu naan soo ko naanul dangay ngay génn sunna taxawu waa ji di leen waar di leen waar ba waaj naan diw ga feggee ci feebar muy sotti ko di di doy doy waar dale ko ci moo tax léeg-léeg njàng mi ci boppam da ciy da ciy baax lu dul loolu da nga jël mbir mu rëy tuutal ko fekk lu tuuti nga réyal ko euh, ceet yi am léeg-léeg mbokk yi di ko laaj ñu ne tëgg ak fecc dafa bokk ci sunna dafa war a am ci ci ceet bi déedéet du sunna yi bokkul ak sunna loo xam ne dañ koo tere woon ñu ne la am na espace boo xam ne daganal nañ ko fa mooy sañ nga koo def mooy loola sañ nga koo def jigéen ji sañ naa tëgg fa nga xam ne ay jigéen ñoo fa nekk di way seeni woy na fecc sax moom di ca benn texte boo xam ne tudd nañ ca fecc amu fa waaye am na nit ñoo xam ne dañ ne xadis boobu céet bi fu mu am fu ne aw jigéen dañoo war a dajaloo fi béréb di tëgg di woy lu tax ñu ne parce loolu sunna la déedéet loolu ñàkk a sunna bokkul ak loo xam ne lu ñu daganal la lii dañ la ko tere woon di la ko tere ba mu yàgg benn espace ñëw na ñu la fii de moom dagan na bu la neexee nga def bu la neexee nga bàyyi kon faaw ñu xam yi dagan xam ne li nga xam ne sunna la nga xam dañ koy wuti ji tuyaaba xam ne yi nga xam ne li mooy atteem dafa war xam ne yi nga xam ne dañ koo sib xam ne yi nga xam dañ koo xaraamal te eh, texte yi nga xam ne moo ñëw ci lislaam nit ki ngir mu mën koo dégg bu dee xadis faaw nga jàng ko ba mu jeeg bu fekkee ne aaya la faaw nga jàng ko ba mu àgg boo ko jàngee ba mu àgg it faaw nga xool bunt booba nag la ci ñëw lépp ndax li texte bi wax lay wax wala gën na ko am na beneen bu ko gën a leeral wala am na beneen boo xam ne am na lu mu ci dolli loo xam ne ñëwul ci bii wala na lu ñëw ci bii loo xam ne wàññi nañ ko ci yooyu may wax yépp ci wàllu xam-xam moom la ñuy tudde mujmal ak mubayyan nag li ñuy tudd tax taxsiis li ñuy tudde mutlaq ak muqayyad yooyu yëpp ay bunt la yoo xam ne ngir nga jëflanteeg texte bi xam lu muy wax da ne jàkk gis ab texte boo xam ne da ne ah bii de moom li mu wax xam naa ko mën naa koo jëfee itam waaye am na beneen texte boo xam ne am na lu nekk ci bii loo xam ne loolu da ko caa génne nee na loolu bokkatu ca soo delluwul ca boobu doo ko xam am na boo xam ne dana woon lii sañ ngeen koo defee nu mu leen neexe beneen ñëw naa ah, déet nii doo ngeen ko sañ a jëfe kat doona lu leen neex kooku mooy mutlaq ak muqayyad am boo xam ne dafa ñëwoon xaw a lëmu waxin wi gàtt am beneen bu ñëw guddal ko kooku lañuy ñu tudde mujmal ak mubayyan texte yooyu nag yow miy jàng tey yépp delluwoo ci doo am fiq ci boobu bunt moo tax dañuy wax ne bépp bunt xam-xam boo xam ne yaa nga ci biir di ko jàng te woo texte yi ñëw ci bunt booba yépp ak réer mën nga ko caa jële te doo ci jële xam-xam kon bokk na ci lii andi xulu dugg ci bunt rek yem ci benn xadis jël ko dem wala nga dugg ci alquran rek xool benn aaya nga jël ko gàddu ko man lam yaxkum bima anzala fa ulaikum kafirun ko atte wala dul alquran yéefar la mu jeex doo xoolaat leneen te fekk dafa am yeneen yu bare bari yoo xam ne loolu nga war a xool eh, juróomeel ba ci yi nga xam ne dafay tax xuluwu di am mooy teengal mooy at taamul gayru sharci fi muaalajati al xuluw fikriyan ñi nga xam ne ñoo jóg di faj ñi nga xam ne dañoo teengal ba siiw ca nañu leen di faje fajiin mu dëng ma mën naa yokk joote maanaam la nga doon faj faf gën a gën a yées far kenn ku ne xam na ne ñi nga xam ne dañoo yor xalaati teengal xeex leen ci jamono ji dem na ba jur xeex képp koo xam ne dañoo gis mu jàpp ci diine maanaam li ñu tudde terrorisme tey ci kaw suuf ak xeex ko dem na ba àgg ci képp koo xam ne day dund ci kaw diine ñu jàpp ne kooka ci biir ñooñu la bokk dañu ko war a xeex kooku musiba la defe nañ ne itam kooka maanaam ki nga xam ne dem na bañ jàpp ne yor na xalaat yooyu xëy na defagul dara tooñagul kenn defagul waaye xalaat yooyu yor na ko nga jàpp dugal ci kaso jàpp di dóor boole ki xaj def nangam xeet lu metti lu ne nga def ko kooku defe nga ne yaa ngi faj waaye yaa ngi yokk joote kooku day dem ba gaja dam bu ëllëgee foo ko génnee itam ak loo ko mën a woon ci àddina bu génnee lu gën a teeng nam meloon noonu lay doon te it mën naa dem ba jur ñeneen dugg ci ca loolu ñoo xam ne ñoom bokkuñu ci woon sax kon mbir ngi am moo xam ne ci kaw suuf tey ci xeex ak teengal ak ëppal ci diine jëmmi xeexiin wi ci boppam daf koo yokk te man dama jàpp ne yokk googu yi dafa am ñoo xam ne dañ koo soxla dañoo bëgg askan wi ak ndaw ñi ak woote sunna bii ak nit góor góorloo na am nit ñu teengal ñu am ci seen biir ñoo xam ne dañuy ëppal ndax bunt mën a am boo xam ne day tax ñu mën a agsi ci yéen loolu ci boppam dafa am ñoo xam ne daf leen ñor te lu bari ci réew yi nga xam ne ñoom ñooy dund dañuy nekk ci jàmm amuñu benn problème amuñu jafe-jafe yeneen réew jóge fa dikk fekk si leen ne leen kat mbir mi bu ngeen wattuwul dana agsi ci seen kaw sooy boo ngeen def ni sooy boo ngeen def ni su ko defee ñooñu tàmbali di gëstu nit ñoo xam ne jotuwuñu ak ñoom dara mën na ñoo dem ba tooñ koo xam ne defuñu ko tam te nag tooñ googu ak dal ci kaw koo xam ne ku set wecc la ku deful dara la kooku mën naa dem ba indi nag fayu su fayu googu amee mooy indi lan mooy ñu ne ñuy jeex na ñoom léegi jaamaarloo nañ ñi ngi xeex terrorisme dal nañ am ci am réew moo xam ne amu fa woon kon masala yi nga xam ne ñi ngeen nu koy indil di wax ne lii jëfandikoo leen ko te fekk nun amunu loola suñuy njiit ak suñuy responsable dañoo war a xam ne loola amu fi lii ñuy wax ci dialogue diggante jullit yi ak ñu dul jullit yi fii ci Sénégal loolu newul amuñu problème boobu suñ ko bëggee def débat boo xam ne dañ koy wax ci rajo yi di ci def ay congrès nit ñi di ci rajo dugg di naan dialogue islamo-christianisme loolu loolu nekkul ñoom amuñu problème boobu kan moo fi déggagun ab guerre bu taxaw wala ñuy xeex ñoo xam dañ diggante jullit yi ak chrétiens yi ñooy xeex fii ci Sénégal musulam au contraire Sénégal jullit yi quatre-vingt-quinze pour cent yi nga xam ne mille neuf la woon ba léegi xam nañ ne weesu na ko ñu toog nañ ab ku ab chrétien di leen atte ñaar fukki at kenn déggul ban si yëngu wala kenn wax leen kon ñooñu dañuy wax ne amuñu tolérance dañuy wax ne kay xanaa seen tolérance par jéggi na dayoo kay dañuy wax waaye moom tolérance moom ñàkkuñu kon amuñu problème boobu ñun li ma bëgg wax foofu mooy léeg-léeg nit ñi toog nekk seeni seen i jàmm ay réew jógee fële yoo xam ne ñoom ñoo am seen i problème ñu bëgg ko internationaliser wane ne li leen dal ñoom seen problème yi bëgg adduna bépp yëg ne loolu dal na leen ñoom itam ñu ñëw sonn ca lool fexe ba convaincre réew moo xam ne jàmm fa nekk ñu ne leen yéen am ngeen di terroriste yéen de am ngeen problème diggante jullit yi ak chrétiens yi yéen de am ngeen ndàngam am ngeen ndàngam su ko defee ñooñu jóg laxasaayu ne fas nañoo yéene xeex lu mel noonu noonu itam tàmbali di gëstu man nga koo def ba dal ci koo xam ne jàmmi kese ko taxoon a jóg jotiwul ak kenn dara te nag danay wax ne muus bi lu mu lewet lewet lewet boo ko jëlee ngàbb ko bëgg ko tàbbal ci teen weem yi yor dana ko génne fa dooleem toll mu laxasoo yow ba keroog nga koy mën a tabbal ci teen bi noonu la mel kon toog bi seetaan yi lay def lu nekk it na te nekk kon faaw ñu xam anam yi nga xam ne noonu lañuy ñuy saafara nga xam ne ak teengal dugg na ko saafara googu danañ ci ñëw ci kanam ci yoon yi nga xam ne moom lañu war a jëfandikoo ngir mu tegu ci aw yoon danaa la nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la doon jëfandikoo ñu teengal eh, benn bis pour nga xam man haju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yónni ali ibn abi talib yaman mu dem di woote e, yàlla dogal ñu jox ko fa benn takk boo xam ne takkub or la takku or boo xam ne mi ngi ko def ci ab der nee na benn der la jël boo xam ne def nañ ko daal defar ko ba mu rafet deru xar wala deru bëy wala deru nag wala gëléem yàlla moo xam leeralut waaye dara la boo xam ne daal lëxunde nañ ko xoos ko ba mu set ba amatul karaw ñu defar ko ba mu rafet <coughs> mu dugal ci or bi ñaw ko ba mu rafet mu yónnee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ubbi ko daal di am ñeent ñum ko séddale ñeent ñooñu kenn ku ci ne kilifa gu mag la goo xam ne awi famille yu bari ñoo nekk ci seen gannaaw te ñeenti ñooñu dañ doon door a dugg ci lislaam kon yonente bi alayhi salaam am na ñu doon jëflanteeg ñu bees ñi ci diini ji bi mu dikkee ñi ko jox mooy Uyayna ibn Badr ak Aqra ibn Xaabis ak Zayd al Xayl ñeenteel ba ñu ne benn mooy Alqama wala Amir ibn Tufayl ñaar ñooñu kenn la ci bi mu loolu am kenn ku jóg ci saxaaba yi saxaaba yi ñi nga xam ñoo fi nekkoon démb ak bëkk démb ñu ne kunna naxnu axaqa bi hada min haula lii day wax dëgg yàlla nun ñii noo ci gënoon a yeey kooku gis la wax ndax gis na ñoom ñooy saxaaba yi nga xam ne xam naa lu mel ne téléphone yi ci koy teg su ko mën a doon door koo teg loolu moo ci gën eh, saxaabi bi wax loolu ne nun noo gënoon a yey ci lii gis na ne ñoom démb ak bëkk démb ñoo nekkoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu fi am lu ne ñoom ñoo ko def jihaad fi sabilillah ñoo doon tasaari diine ñoo doon jàngale ñoo ci yàgg ñoo ko teel a wuy si kon daal ñeenti kàngam ñëw nañ rek or bi ñëw ñu daal leen koy séddali ci jataay kooku ne ah noonu day lii noo ci gënoon a yey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggee loolu mu ne ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama ndax munu leen maa wóolu te xam ne man kane ci asamaan si man la wóolu kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala ya'tiini xabaru samaai sabaaxan wa masaan subaa ngoon xabaar di jóge ci asamaan di ñëw ci man ngeen di ko gis te ngeen maa wóolu fa qaama rajulun am jenn waay ji jóg taxaw nee na xaairul aynayni nee na ku bët yi xóot waa ju bët yi xóot mushriful wajnatayn nee na xar kanam bi yii dafa jeex ba yax yi di feeñ fis naashizul jabhati nee na yi dafa jëm kanam màgg ba jëm kanam kastu lixyati muy boroom sikkim bu sëq maxluuqu rasi watu ab nel mushammirul isaari nee na mi ngi laxasaayoo ak laxasaayam bu dëgër waa ji taxaw kon melokaan yooyu la nettali ne noonu la mel kii nettali xadiis bi melokaan yi jubluwul ne ku mel noonu rek da ngay yor pas bi waa ji yor wala mel ne moom waaye ngir mu xam ne moom seetlu na waa ji bu baax a baax di mel loolu moo tax muy wax fa qaala ya rasul allah ittaqillaha yow bi ragalal yàlla fa qaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waylaka yaa ngi alku awalastu axaqa ahli al an yattaqiya allah ndax du man maay ki gën a yeyoo ragal yàlla ci kaw suuf qaala summa walla rajulu naka mu ko def waa ji moom daal di génn jataay ba waaxu di dem qaala xaalid bnu lwalid xaalid ne ko yaa rasulallah ala adribu unuqahu xanaa mënoo ma bàyyi ma rey ko kon nag foofu li ki ëppal nan lañ koy saafaraa xaalid nee na ko te nga ma bàyyi ma rey ko qaala laa bi ne ko déedéet laallahu yakunu yusalli amaana mu doon koo xam ne kuy julli la comme comme julli la mu ngi julli bàyyi ko fa qaala xaalid wa kam min musallin yaqulu bi lisaanihi ma laysa fi qalbi bari aana kuy julli day di wax ci làmmiñam loo xam ne bokkul nga la ne ca xolam xam nga ni jamono yooyu naafeq yaa ngi fi bari lool nag ci madina qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inni lam umar an unaqiba quluba annaas man kët digaluñ ma may gëstu la ne ca xoli nit ña wala ashuq butunahum waxuñu ne naa xar seeni biir ngir xam lañ fas kon loola leer na nañ qaal tumma nadara ilayhi wa huwa muqaffin yonente bi alayhi salaatu wasalaam xool ko muy dem mum waaja foofa la waxe waxam joojee mu ne innahu yaxruju min didi hada qawmun yatluuna kitaab allahi ratban dana génne ci ndiggul waa ji ngeen seen muy dem ñoo xam ne dañuy jàng téere bi yàlla bi njàng mu yees tëq maanaam njàng mu aw yoon laa yu jaawisu xanaajirahum te njàng moomee du weesu seen bëli yooyee nga xam ne moo koy jàng yamruquuna min addiini kama yamruqu sahmu min arramiya danañ génn diine ji comme ni nga xam ne noonu la fett di génne euh, ni balub fett di génne fett gi nga xam ne moo ko sànni kon foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku toll ne moom jëfandikoo lim jëfandikoo ba àggal ci loo xam ne wóor na ne yàlla moo ko ko sant nit jóg kenn ci saxaaba yu mag yi waxi waxam ba àggal ne noonu kat jàppoon na ne lii noo ci gën a yooyu yonent bi leeralal ko ne ko man ngeen maa wóolu parce que man maay kii nga xam ne alxuraan maanaam xabaarub asamaan day ñëw ci man suba ak ngoon kon su ma àttee ngeen xam ne loolu yàlla moo àtte booba saxaaba yi moom dem jeneen waay jóg taxaw joo xam ne moom la kenn xamul ku mu doon te bokk ci biir jullit yi ak melokaanam yooyee mu mel daal dina ko ragalal yàlla xam nga nag loolu moom jéggi na dayoo lu mel noonu ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ci waroon a tegu nag su fekkee ne tëj daa war a am wala dóor wala toroxal wala yu mel noonu yooyu yëpp da ca war a am waaye lu mu ko wax bàyyee ko amaana kuy julli la moo taxit nag yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala nattoo na leen yi dugg ci yu mel noonu am na neneen nañ ko war a saafara lu dul nag jàppe leen ay noon fas leen yéene lor loo mën a def ci loo xam ne lu leen di gaañ nga def ko déedéet loolu du mooy saafara si am na sereen saafara su gën ci ñoom soo xam ne dana ñëw ci kanam insha allah bokk na ci eh, yi nga xam ne mooy sabab yi moo di az-zuhd fi al-ulama ar-rabbaniyin boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo boole jàngale ak yar nga won leen gannaaw dem beru ci jàngiinu xam-xam boo xam ne du jàngiinu xam-xam xam nga ni jamono ji léegi moyens yi doomu adama yi di jëfandikoo dafa bari yoo xam ne bu nit ki yeexee dana jàpp ne lii mu nekk njàngum xam-xam la dëgg la loolu mën naa dimbali nit ki mu xam lu mu xamul woon kaset yeeg son yeeg internet beeg yépp ay moyens la yoo xam ne mënees na cee jëriñ waaye nag loolu day du doy doyin woo xam ne dana mën a dem ba weesu nii ngeen def sukk sa ñaari bëti woom di déglu ñu lay jàngal ngay wax ngay déglu darsu yu mel ne yii ñuy def ci jàkke yi lu munta ñàkk la su amatul rek nit ki du am xam-xam boo xam ne da koy jëlee ci nit ki directement mu ñëw ci moom li muy def kay mooy déglul boppam léeg-léeg nit ka wax mu déggee ko noo xam ne bokkul la la ko wax léeg-léeg mu gis dara defe ne lii la fekk du loola léeg-léeg mu yërub téere loo xam ne bokkul la borom téere bay wax léegi léeg mu gis dara gisaat leneen loo xam ne lu ko dindiwaat la te du xam nu mu leen di boole ñoom ñaar loolu ngëlëmte lay indi su fekkee ci borom xam-xam lay dem di toog di déglu nag bépp lënt bu mu am dana ko mën a dindi ci saa si bépp ruq-ruqaan bu mu war a laaj dana ko mën a laaj kon foofu moo tax dëddu borom xam-xam yi wan leen gannaaw kooku dafay indi musiba moo tax al imaamu shafii mu ne man tafaqaha min butuni al kutubi dayaa al ahkam man tafaqaha min butuni alkutubi dayaa al ahkam képp koo xam ne nee na sa fiq da ngaa dem jànge ko ca téere doona rek di liir nee na kooku moom dana sànq atte yi dana sànq atte yi nga xam ne moo nekk ci lislaam juróom-ñaareel bi ci sabab yooyu moo di riyaabul wayi bi awaqib al xulubi al fikri maanaam ñàkk conscience ñàkk ñàkk xam bu baax a baax euh, jëmmi teengal ci wàllu diine li mën a jur ëllëg ñàkk koo xam bokk na ci yi tax nit ki di dugg ci ak teengal waaye ku xamoon loor ji ci mën a jógee yoo xam ne ñu mat mën a dellu ci kii teengal la mën a dellu ci jëmmi daxu bi ci boppam mën a dellu ci lislaam ji yépp kon kii teengal su xamoon lool te lu baax dong tax koo jóg ak sellal tax koo jóg kon dana yem fañ ko yemloo waaye du seq jéego boo xam ne kenn seqloo ko bokk na ci yooyu it moo di ñàkk a xam orma ji nga xam ne dereti jullit am na ko ak ak alalam alali jullit ak deretam dafa am orma yoo xam ne dañ ko war a sàmm boole ko ci nécessité yi nga xam ne dañ ko war a dimbali doomu aadama ji sàmmal ko ko ñàkk xam orma jullit jooju moo tax nit ki mën a xëy yéefarloo ko def yéefar la te amuloo ci dalil ci la nit ki mën a jóge fam nga naay dal ci kawam rey ko en tant jullit ci kaw lan ci jàpp ne génn na diine ji moo tax mu di ko rey kon ñàkk xam ormay jullit deretam ak alalam ak honneuram ci boppam loolu dana tax nit ki def lu mel noonu bokk na ci yooyu ba tey réere àq yi nga xam ne ñi nekkul jullit am nañ ko ba tey al jahlu bi xuquqi gayri al muslimin maanaam ñi nekkul ay jullit te dëkk ak jullit yi di dund ak ñoom dafa am àq yoo xam ne lislaam def leen ko jox yoo xam ne kenn mënatu leen ko xañ lu dul ñoom ñoo dem ba xañ ko seen bopp ci kaw def loo xam ne lu jaaduwut la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci xadis bu wér mu ne man qatala muahidan lam yarix raixat al janna ñi nga xam ne da ngeen a siñeente ñoom ay accord ay ay ay kóllëre yu dox seen diggante te doonuñu ay jullit ngir ne da ngeen a war a nekk ci jàmm nee na ku ca rey kenn nee na xetug àjjana du la xeeñ ëllëg en tout ci jullit yi lay wax jullit bu rey ab yéefar ñu ko léegi doo xetug